dëgg yàlla bu ñu koy natt ci nattukaayu diine sukkandiku ci li nga xam ne ay nit a koy wax ak di ko jëf ak diini jëfe kon ay wax ak ay jëf ak i jëfin la danga naan ndax man dama nekk ci jaahiliya ba gën a sori ci waxinu wolof ndax dama nekk ci ceddo gu xóota xóota xóot ga nga xam ni gisaguñu woon benn ceñeer rekk ci diine lislaam nga dégg ay nit ñoo xam ne ñii lañuy génne ci seen gémmiñ doo ko sax mën a tudde fen ndax ab fenkat suy fen dafay yaakaar ne kenn xamul li muy wax ab fenkat suy fen day yaakaar ne li muy wax kenn xamu ko mooy misaalum gan gu ñëw jóge fu sori wala koo xam ni kii dafa tukki woon ci réew yu sori su dellusee loolu tubaab di wax à beau mentir qui vient de loin kooku bu ñëwee buy fen mën nga wax ni fenkat la ndax moom day nettali loo xam ni ci xalaatam ñii mu koy waxal ñoom xamaguñu ko walla gisaguñu ko kon kooku mën nga ko tudde fenkat mën nga wax koo xam ni kii li muy wax sax xanaa mën na gëm ne moom ñi ngi koy wax gëm nañ ko maanaam nga jàkkaarloog ay nit di wax ay wax jàpp ne li ñuy wax gëm nañ ko kooku it fenkat dina ni mel waaye koo xam ne ki yow yow miy wax xam nga ne yow gëmoo sa bopp kon nan la la ñeneen ñi war a mën a gëme waaye nag dañoo nekk ci réewum théâtre li waral may wax wax ji nag dama gis ci réew mi bu njëkk bi ab jaahil bu toog loolu nag du tey du démb looloo yàgg ci réew mi ay jaahil wër ko muy lim njabootu Baay Ñas naan diw dem na diw dem na diw dem na ay diw dem na nit ñay yuuxu mu naan ñoom ñépp day mënoon nañ fee toog ndax yow yaay yàlla suñu borom tabaraka wa taala wala yàlla daf laa wax ñooñu ndax seenug dem moo gën ci ñoom walla mu gën ci seenu njaboot ndax yàlla moom du juum du jaawatle bi mu koy wax am na ñu koy dégg di jooy ña ngay daanoo ko mbëkk te am na ci ñoo xam ne ñi ci théâtre bi rek la ñu nekk ba tey te kon ngee wax leen ne leen bi fi bàyyi di nekk rahmatullah alayhi bay waaj a génn àddina xanaa dangeen ngeen a waroon a téye yàlla jàpp loxoom ndax nee na ñooñu fi jóge ñépp jot na nag nit ñi téye loxo yàlla ne ko doy na ñi ngay rey doy na loolu la wax maa ngi tuubal suñu boroom man kàddu gi ak dégg gi ma ko dégg ak répété gi ma ko repete suñu boroom tabaraka wa taala ci màggam ak baaxam ak yërmandeem ak xamam nim ko waxee ci alquran ne kullu nafsin zaiqatul mawt yóbbu muhammad rasulullah yóbbu yonent ya yóbbu saxaaba ya yóbbu ku ne ci àddina nag yóbboo ko nu ne yéen ngeen taxaw ne yéen ay nit ñu dem jot nañu téye ci loxo bi yàlla ne ko yow bàyyil ñi ngay yóbbu jàpp wax ji nag muy wax ju ñàkk solo ndax wax jooju dey wax gënu ko aay gës wax gënu ko xaraam mu mel na suñu borom moom kenn dafa am ci moom sañ-sañ kenn dafa am ci moom ab dogal mel na li ngee lii mu defit it na naqari niñ ko daan tàggee am naqar tiis waaw ku sa ndey gaañu nga am naqar ak tiis ku sa baay gaañu nga am naqar ku sa doom gaañu nga am naqar ku sa xarit gaañu nga naqaru am naqar tiis xar mi nga yar ci biir kër gi mu miin la rek bu dee nga am naqar tiis parce que loolooy nite waaye day àgg ba ci nag nga naan suñu borom bu ko def su ngeen toobul day ragal naa ne loolu da ngeen ko layeeg suñu borom ëllëg réew mi nag kom nekkul ci loxo yi ñu am sañ-sañu di àtte jaam ñi kenn ku ci ne yem ca place ba mu war a yem lu dul ñoom la leen arrangé la ñuy àtteel seen bopp pëccëxoo bi day jéggi dayoo dégg naa ci ñu àgg ba ci nit ñi daal ñoom ay xaji ndoxaan lañu rek bu ñu dajee fii ci ginnaaw dëkk bi bu ñu waxtaanee ba juboo rek sëy am na ay xaji ndoxaan nga xam ni ci seen conception ñoom ci seen gisinu diine léegi bàyyi moom amatul droit ci doomam doom ji daal bu tollee ci war a sëy dëkkandoom bii ci wet gi moom itam doomam ju góor ji toll ci war a sëy bu leen neexee ñoom su guddi jotee ñu àndandoo dem ca biir euh, oto yu yàqu ya wala ñu dem ca ginnaaw pàkk këriñ ba walla ñu dem ca àll ba lal fa seeni basang nee na bu ñu waxtaanee ba juboo sëy am na lu leen neex ñu def ko su boobaa dootul njaaloo lii kat loola ñoo ñu wax xanaa nag kay àddina day waaj a tukki xanaa àddina day waaj a tukki te lii lépp day réew mi ñi nga xam ne ñoom tey lu bon bon bon bon bon seen kàddu moo ëpp valeur sama kàddu gi di ko dégg nga ne dégguñu ko ma ne leen lu tax dégguñu ko lu tax dégguñu ko fan lañu teg ñàkk dégg gi li xew ci réew soo jiitee ay mbooloo yu jéggi dayo sañ leen sañ sant sañ leen tere lu ca biir ak lu ca biti war nga koo xam Omar ibnul Xataab radiallahu anhu li mu yilifoon moo ëpp li ñii nekk ci réew mi yilif te ma nga doon góorgóorlu kemt lay kàttanam di fexe xam li jaam ñi nekkee xanaa lu mu gàtt-gàtt ñu def na suñu maam yi nga xam ne ñoom bëgguñu woon a dëgg ci rajo lu leen naqari waaye bëggoon na ñoo xam li xew bu xibaar yi jotee ñu taal seeni rajo déglu bu xibaar bi jeexee nga fay sa rajo bu waxtu tàggee jotee nga taal sa rajo déglu bu tàgg yu jotee nga fay sa rajo waaye kon loolu mooy li gën a tuuti ci lu nit war a def boo jiitee ak mbooloo rawatina nag bii nga xamee ne nag réseaux sociaux yi àgg na fi mu war a àgg réew mi tas fitna ji yaatu jafe-jafe yi bari tooñante gi jéggi dayoo su fekkee ne yow mii nga xam ni yaa yilif ñii jaboote leen nee ñu xamoo li xew ci réew mi kon ku yebu nag daw nàkk sa një xam foo jëm ndax nag ñi la war a sant war laa tere war laa teg ci yoon war laa jubbanti bu ñu xamul li nga nekkee xamuñu li sa njaboot nekkee xamuñu lu réew mi nekke kon àddinaa ngi tukki addinaa ngi tukki yi wax di xew ay nit taxaw ne ñoom gëmuñu li ñu yónni woon yonent bi sallallahu alayhi ay waxam daal bu ko kenn wax nit ñi kuy wax waxal li yàlla wax addinay lislaam fi lislaam nekk ci li addina amul fenn fooy dem nit ñi di wax naan alquran rekk la ñuy dund amul fenn ci ci islam du ñàkk nag ay benn benn nit yu génn tudde seen bopp ay quraani yun defe naa sax noonu la ñu tudde seen bopp nee ñu ñoom lu jugeewul ci alquran soxlawuñu koo dégg soxlawuñu koo gis lu jugewul ci alquran soxlawuñu koo dégg soxlawuñu koo gis ñooñu tey ji bu la nit ñi di wax naan nañu débat gis naa ñuy débat ak ñoom dangaa ñàkkal sa bopp fayda kii déga débat ak ñu mel noonu ndax ay nit dafay am ay détails yu leen di wuutale yu ndaw ñu mën a waxtaan toog waxtaan ba ñoom kenn ki convaincre morom mi wala boog ñiy déglu ñoom jëfandikoo seen xel xool la leen doy ci ñaar ñoo xam ni dañoo am ay wuute yu ndaw waaye loolu tubaab di wax ay fondamentaux yi nga xam ni yii ñooy kenooy diine ji nga xam ne bi lislaam sosoo ak léegi loolu lañ fi xam moom lañ fiy dund junni at ak ñeenti téeméer ak léegi réew moo dem muy réewum lislaam looloo fay dox ñu xëy benn bés ay dikk nit xëy ni déedéet loolu du lislaam lislaam daal mooy alxuraan ngay seet boo ko ci fekkee baax na boo ko ci fekkul wérul wax yonent bi bu ñu ko kenn indil man day sukkandikuwuma ci wax benn mag danaa jël nag waxu mag def ko référence day fekk moom mu fekk si li yonent bi wax wala mu fekk si li alxuraan wax waaye nga taxaw ne li yonent bi waxoon lépp sànnil ci àll ba waaw dégg naa fi sax ku wax ni Malik bu fi yàggoon mu wattaam yépp da koy sànni kon kayit nañ loolu mooy li ñiy wax soriwul ak la kooka wax ndax saa yu ko liiree rek am lu mu ca dindi yii wax yu garaaw ku ko mën a génne ci sa gémmiñ ñu naan nit ñi dem leen ngeen débat ñoom man damay débat koo xam ne kii gëmuloo li ma gëm gëmuma li nga gëm may toog di wax ngay ñod di jëm boor bee mooy war ñod di jëm boor bee li am kay mooy nañ leen laaj ñoom rek li gàtt yi nga xam ni moom mooy ay tomb yu tuuti rek dañuy dindi xutba ci julli jumaa kon nu ñuy jullee jumaa zakat yàlla santaane na ko waaye am na ci ay tomb yoo xam ne ci biir zakat yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñu ko leeral moo nu ko leeralal ba mu leer ndax julli ñoom kon dañ ciy takbiratul ihram wax allahu akbar ndax bu ñuy julli dañuy wax asalaamu aleykum wala boog nan la ñuy jullee julli gi yàlla santaane na ko waaye kii mu yónni woon ci ñun moom moo wax ne julli nii may jullee mu ne kooku moom la mu wax yenuwul maanaa sallu kama raaytumuni usalli mu ne déedéet du ma jullee noonu ñu wax ñuy nan lañuy ñuy sange néew ndax loolu it alxuraan jàngaluñu ko yonent bee ñu ko jàngal kon ab néew duñu ko sang ñoom ci yoon ci yoon ci yoon ak yeneen question yoo xam ne bu ci nekk rek munoo ko gis ci biir alxuraan te danga ko soxla te boo ko bëggee gindikoo ci biir xadis nga koy fekk bokk yi àddina nag ba mu sosoo ba léegi yàqkat du fi jóg ba ca commencé nag ca Musaylimatul Kazzab ba fii ñu toll loolu it nag amuma ci responsabilité man sama moroom amu ci responsabilité ndax tollatuñu fu ñuy jihaade tollatuñu fu ñuy jëlante ay yataki dóorante li ñu am mooy waxak ñi ñu mën a dégg tàmbali ci suñu njabootu bopp di leen yar ci jàng ak jàngale jéem a xam lu seen diine ci kemtalaay suñu kàttan ba keneen mënu leen a këf jëme leen ci yeneeni xalaat ak yeneen yeneeni gis-gis ñi ci des it kenn ku ci ne am responsabilité ci jàngal say doom yar say doom gindi leen ba ñu tàbbi ci loxo yi mel noonu bu ko defee nag ñee ñoom ñu bàyyi leen ak seenub liggéey te xam ni yàlla nag gëmmul lawul dajjantul su fekkee ne loola moom suñu borom seetaan na loolu prospéré kon yàlla moo bëgg kon loolu féete kaw ñun li ñu nekk féete suuf su boobaa ñu continuer ci li ñu ne rek ba ba ñuy dajeeg suñu boroom mu atte ñu waaye coow li nag man dootuma ci dellusi si jamais dootuma ko def parce que nit ñi nag ñoo ci des ñoom ñooy seet la leen ci doy ñu def ko awma responsabilité ci kii na jaar fii wala na jaar fee li ma war a wax daal maa ngi koy wax li ma war a jàngale maa ngi koy jàngale sama kemtalaay kàttan ñi ci war a wax ñeneen it nañ ci wax baax na buñ ci waxul ñoom seen responsabilité la ñoom itamit ci seen diggante ak seen boroom su fekkee ne waxuñu li ñu war a wax waaye lii ma gis ci réew mi daal muy dox moom ku ci tiitul doo tiit ci leneen bu ko defee ñu yemale kàddu ki fii ba beneen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu